maa ngi tudd Moussa Touré maa ngi dugg chemin de fer 1977 def na 40 ans de service yàlla def nu retraité le 7 septembre 2015 ba léegi DBF bi fay nu sunu xaalisu retraite te ñun duna yor ñetti soxna ñi yor ñeenti soxna ñu yor ay njaboot ñii am nañu fukk fukk doom ak juróom-ñett ñii am nañu ay fukk doom xale yi lekkatunu sëy yaa ngi tas suñu doom yi noo ngi gàddaay ñii noo ngi devenir ay fàkk man parce que nag saa waay borom kër bu toogee saako ceeb doon taxaw saako ceeb ba taxawul kër ga mu ngay dellu ginnaaw céeri céeri bu mu fi nekkee nekk directeur de Transrail ak lu fi nekk lépp duré ko fi tous les cheminots bu mos a retraité bind na sa chèque jox la bu nu jaayee bu ñuy ñëwee ba léegi wax dëgg yàlla du noo sonn añatunu lekkatunu naanatunu xamunu fu nu jëm yuuxu rek moo des parce que ñun ay borom njaboot noonu du noo sonn du ku nu fay si na xaalis toog atum lëmm kenn fayu la métti na am na sama ay camarade ba léegi IPRES mënu nu ko fayeku nga toog translat yi waroon na fay fayu la dafa jaaduwul la veille de la tabaski danoo ñëw bind pour demander xaalis jotuñu dërëm tam xarit bi jotuñu dërëm te wax dëgg yàlla danoo war a na au oh, moins ku ku la fayul sa kii boo ñëwee di demander lu li nga moom. kon yéen bu ngeen feebaree fu ngeen fajoo. amuñu fu nu fajoo dee rek amuñu fa fajoo sama ñaari doom dem na bu ma la tëddee ba léegi sama ñaari doom doo nga fee si kanam alaaji tëdd bu may ñëwee fii dina ma bindal invitation dina ma bindal dara. kooku musiba la sama ay doom bu loon ma jojo jaañ bu loon yom Cheikh Diène dama am lu ma dëjëlee sama doom dama koy répété bu loon ma jojo jaañ a Cheikh Diène sama doom yi yi génn àdduna dama leen dëjël bu mu demee départ bu mu demee départ nga xam ne kon metti na loolu laa lu may wax